yalla moy bolé ay nit mais nak dama staff bo xamante biñu ñëwé ñu saliw li tax ma ni da ngeen ko japp ku ne xamna résidence la Dior ni mu mel ci cheikh repas yi gis ngeen bi ngeen paré tegal nañ leen ndox te il faut qu'on parle de ces détails là seen boisson tout am ngeen man luma soxla ñu né ni c'est pas la première fois ma ñëw fi mais je sais que ñu jare jàppale ngeen gis nga bu ñuy def formation mine de ku si nekk di nga fay xaalis balaa ngay am diplôme li tax may la yëf suñu borom def si dugg mooy yéen tubaxkal la man Covid bi bu mu commencé laa arrêté ta Germaine mi ngi nii eggalewuñu ak ñooñu diplôme yi mais yéen si biir Covid bi parce que nag Covid bi lu bari def naa ko ci ci ndimbalu suñu borom rek ay nit ñu baax ñu mel ni sa waay ñu wax rek mu ne dama bëgg sama sama sama gox loolu laa ko jàppee Dieng Saala jàpp naa la te duma la bàyyi ndax waa Thiès te bëgg naa nga jàppale waa Thiès bëgguma am gàcce bëgg naa yeneen jigéen yi yeneen restauration et tout ça nga defal leen ko jotaay tey bi li ko waral mooy dafa am kuréel bu ñuy wax vision thiessoise muy gis-gis bu sell ngir Thiès ay doomu Thiès taxawal ko Euh, nit ñun kenn ku ne bokkal fa nga bokk waaye fii moom nañu Thiès boole loolu nag moo tax man aussi may doomu ties bëgg ties ties ñor ma moo tax ma ne lépp lu nit di defal ties su ma mënta def lépp it ci dugal sama loxo naa ci dugal sama katan dugg ci sama xel dugg ci sama xalaat Kuma ma xam ku ci mën a def it naa la ci woo loolu moo tax bi ma sëñ Mbàkke bul wut farfarloo bul xeeb bul bàyyi kenn képp kuy doomu Thiès fexeel ba dem ba ci moom wala nga fexe ba mu am xalaat bi ni yéen taxawal ngeen nii woo sama xarit yu bari wax ak ni wax leen ni nañ jàpp ci mbir mi mbir mi di mbir mu ñor ndax cees xam ngeen ni lu waay gàtt-gàtt xam-xam lu waay gàtt-gàtt xel xam nga ni ville d'avenir la ndax dëkk boo xam ni fu fu waay di dem mën a mën fi la gën a yombe jóge fii dem ci dëkk boobu fi la gën a yombe ndax ville Carrefour la ba ci des yàlla xëccal ñu aéroport bi nga xam ni fu waay di fi ngay jaar fu waay lay jaar yalla jële ko Dakar indi ko yes kon na ñaan ci yes gi ëlëk mu bok ci dëkk yi nga xam ñu tuddu tuddu di capital kon na yes yalla na sam wa ci yes yalla dimbali ci yes yalla taxaw ci yes préfet ma ngi lay nuyu bu baaxa baax di la ñaan nga nuyu ma monsieur le préfet Moussa Diagne ku am taxaway ku am yeg yeg ku oyof ku bëgg liggéey waaye di beral nuyu monsieur le gouverneur Moustapha Ndaw mi nga xam tay ji ngant mo tax ñëwul waaye nee mo amone amoon yéene ñëwal fi boppam ak ki nga xam mo jité conseil départemental bu Thiès dembu la wote joxe ay ndigal ni ya- jatara so boo xëyee boo dem demal bo mënta dem yebalal ñu fa dem kon ma ngi nuyu mbolam yeb yëpp di sant mbooloo mi yëpp alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh di nuyu suñu serigne suñu xarit suñu wolere suñu sang Ahmed salum jeng mën na ni li yok tax ñu sawar tew ci si bi tay mbokk nga ci mm. ndax yalla dafa dogal ñu xamanté bu yag mm-hmm. ci yeneeni anam donc euh, ñu ngi lay nuyu di la jox sa La vision thiessoise dafa ñëw participer ci Nous waral jigéen ñi ngeen defal formation mën accéder ci financement ndax keroog yàggul dara le ministre madame le ministre de la femme de la famille du genre et de la protection de l'enfance dafa ñëwoon ak programme de financement bu mu jagleel ay femmes yaakaar naa mu ngi ko teewee woon te ci choix bi dafa bokkoon critère de sélection yi ñu choisir ñi nga xam ni ñi ngi yëngu ci activité yu mel ni transformation des fruits et légumes bon entre autres euh, domaines yoo xam ni bokkoon nañ ci critère de sélection yi mais mën nañ ni boobu bokkoon na ci gën a fës ci yi nga xam ni état du Sénégal jot na ko financé donc damay bëgg wax rek ni état du Sénégal bu jógee pour financer day financer koo xam ni formel na reconnaître nañ ko par l'administration mais aussi day financer koo xam ni mën na dara donc noonu lañuy ñuy mën a féliciter waa vision thiessoise mais aussi jaaree fa di ñaax récipiendaires yi ndaxte yaakaar naa warul yam foofu ñu ngi koy brosser sànq ci question wu suivi bi xam-xam bi nga xam ni jot ngeen ko am ci deux jours séminaire yi dafa waroon doon loo xam ni lu fructueux maanaam ci terrain bi ngeen koy mën a jëfee accéder ci financement bi bi mën a euh, financer seeni activité